koor bi social bi dafay bëri te maison Ndara doon nañu ñëpp taam yow en tant que responsable naka nga jàngate waaw côté social bi ngay wax euh, ci wéru koor bi dañ koy rafetlu parce que ku ne xam na ne wéru koor weer bu am barké la wéru ngëneel la ndax euh, ñi ci biti ni ñu koy feetee en tout cas diko dundé ñun ñi ci biir également suñu pensionnaires yi noonu lañu koy dundee li may faral di wax rek elles sont prises en charge euh, totalement par l'État mais terewul itam partenaires yi ñu ngi ñëw ci kaw loolu duñu jàppale pour ñu gën a am doole ñoom ñu gën a nekk ci condition yu baax. gis ñu ngi koy def kenn ci ñun mu nekk ci sixième année. Mhm. ngeen yaatal ko. Mhm. ñu boobu naka la demee. waaw en fait partenariat boobu comme ni nga ko waxee su nekkoon ne nekkul loo xamante ne lu dëgg la. amana kon duñ ko nekk di ko répété di ko répété waat parce que damay wax ne réinsertion sociale bi dafa am solo administration pénitentiaire ñaari mission la am bu njëkk bi mooy wàllu sécurité kaaraange beneen bi aussi muy wàllu préparation à la réinsertion sociale moo tax ñu ubbi suñu ay bunt ci côté boobu partenariat bi gën a am doole dëkk yi xam ne fii jaar-jaar la rek bu ñu génnee mën a delluwaat ci société bi te xam ne ci société bi la ñu bokk mami nag li muy def dañ koy rafetlu ndax euh, jigéen ju baax la bu jàmbaare la ndax amoon na yeneen yitte yoo xam ne amaana mënoon na ko dox yi mbaam mu defee ko fa mais dafa préféré ñëw partagé ko ak ñi nga xamante ne nii ay rakkam lañ ay magam lañ ay tantam lañ ñun ñëpp suñu ay sœur lañ ñoo nekk fii ndax li ñuy wax rek kaso jombul kenn te wax dëgg yàlla am na ci taxawaay bu rafet ndax boobu ba léegi sonnul tàyyiwul wax dëgg yàlla pour jàppale leen pour defaat édition bi comme ni mu ko daan defee année yi passé te dafa mel ni daf ko gën a yaatal vraiment te xale yi aussi apprécier nañ ko autorité yi vraiment aussi apprécier nañ ko parce que bëgg nañ wàllu réinsertion bi am doole ba détenu ku ci nekk di si gis sa bopp insertion bi nga doon wax sànq. Mhm. gis nañ ni jigéen ñi jàmbaare ñu fi. ñaam mhm. kasa joomul toon na. Mhm. am na ku am na ku ñu tooñ. am na koo xamante ne ñàkk xama fi. moo fi yóbbee. léegi pour ñooñu mën a réinsérer waat ci société bi bu ñu génnee. yéen formation bi day gën a day gën a jur leen di gën a jàppale. parce que gis nañ ni ay métier da ngeen def ay atelier de couture loolu yëpp ci biir lii rek ñu mën a ci société effectivement comme ni nga ko waxee ci biir dañ fiy jàng ay métier dinañu def euh, formation en coupe et couture formation en broderie manuelle euh, en teinture danañ def transformation fruits et légumes transformation céréales locales dina jàng aussi alphabétisation dinañu def perlage donc activité yu bari ñu ngi koy mëne ci biir waaw pour parce que am na ci ñu bari ñoo xamantene fii lañ ko mëne suñu génnee am na ay ONG également yu leen di jàppale di leen financer ñu continuer activité yooyu waaw dinañ jàng aussi arabe alquran comme ni ñuy jàngee aussi catéchisme bi ak yëpp affaire wàllu catholique bi am na ñu leen di jàngal aussi parce que volet spirituel bi également dafa am solo si dund doomu aadama waxantuma la nag ñi nekk ci biir fii dafa am solo torop ci ñoom

Euh, di ñaan yàlla vraiment partenariat boobu dox suñu diggante ak moom mu nekk loo xamante ne lu yàgg lay doon ba détenu aussi di ci am jàngat saa su ne parce que bu ñu fi dajee weeru koor waxtaan ñu def ci ay ñaan ñu ñaan yàlla ñaan yooyu ñu ñaan yàlla nangul ñu ko ñu ñëpp ñu bokk ko parce que suñu ay famille lañ parce que li ëpp si suñu jot fi lañ koy defee mën nañ ne suñu famille kër ga buñ ñu gisee guddi la fajar ñu xëy liggéey donc ñii suñu njaboot lañ wéru koor bi conférence yu ñu ci def ci def ay ñaan yaakaar naa ne ñun ñëpp lay profité vraiment di gërëm ñëpp di gërëm aussi personnel bi parce que ay jàmbaar lañ dañuy wàcc le matin war a xëyaat suba mais dañuy yendoo ak ñun passé journée bi jàppale ñu si activité yëpp suba ñu ñëwaat donc chaque jour daal presque ñu ngi fi mën na bu ñu ñibbi seen kër sax presque guddi na vraiment di gërëm ñëpp merci beaucoup c'est moi qui vous remercie